bi des ci biir mooy génn mooy génn. te yaa doon lekkandoo ak moom yaa doon moom. yaa doon naanandoo ak moom yaa doon moom. yaa doon tëdd ak moom ci lal yaa muy sa jëkkër muy sa jëkkër muy sa jabar muy sa tey tey yaa ngi koy sotti suuf koy sotti suuf. bàyyiloo ko benn pax ko benn pax. du palanteer du palanteer. du dara. rokkos nga ko rokkos nga ko. ba muy xox. ba muy xox ci biir ci biir. bu jigéen bu jigéen di soode ganaar di soode ganaar bu ko sottee bu ko sottee ndox mu tàng ndox bu tàng xaj ci dunq yi ci dunq yi dangay ngay dégg da dégg ganaar gi ganaar gi ne xox ne xox nga foog ne dafa dund nga foog ne dafa dund dundul de dundul de lu ñu rendi lu ñu rendi ba mu sedd ba mu sedd sotti ko ndox mu tàng sotti ko ndox mu tàng ba kawar yi bàyyee kawar yi bàyyee fu muy dunde fu muy dunde nit ki nit ki mu woo koŋ mu woo koŋ ñu dugal ci morgue bi ñu dugal ci morgue bi mu congelé mu congelé ba wow ba wow teglante leen leen comme ay ay damba comme ay damba. génnee ko génnee ko di ko sotti ndox di ko sotti ndox. ba mu décongelé wu ba mu décongelé wu. nga bës biiram nga bës biiram. ba cabinet bi génn bi génn. nga bës nakkam nga bës nakkam. ba saw génn ba saw génn. kan la kan la. nekkatul waliyu. kii nekkatul. waliyu xanaa waliyu xanaa. xanaa nekkatul xalifa général xanaa nekkatul xalifa xanaa nekkatul sëriñ bi bi. yow taalibe yow taalibe. yow yaa bës bi yow yaa bës bi. yaa bës biiram yaa bës biiram dem àll yi génn dem àll yi génn yaa bës naqam yaa bës naqam saw yi génn saw yi génn lu ko moy lu ko mooy nga defal ko càngaay nga defal ko càngaay balaa muy yegg sët balaa muy yegg sët li muy yëngal cabinet bi génn cabinet wala saw bi génn wala saw bi génn yàq càngaay yàq nit na yem ci loxo yi. sang bi nee ne nit ñi nañ yem ci loxo yi. nañu doon ay jaamu yàlla ay jaamu yàlla. du ñu jinne du ñu jinne du ñu kondorong du ñu kondorong du ñu kiyaafi du ñu kiyaafi du njuuma du ñu njuuma du ñu malayka du ñu ay nit lañ ay nit lañ ni ñu dikkee ni ñu dikkee noonu la ñëpp dikkee noonu la ñuy dikkee ñuy demee ni demee noonu la ñëpp di dem ñëpp di dem bàmmeel raglu na de. sang bi nee na bàmmeel raglu na de. yëkkatil ma rideau bi. yëkkatil ma ma nokki tuuti. ma nokki tuuti. am leer tuuti. am leer fa de. taalal kilim taalal kilim bi. taalal fa de. may ma ci galaas may ma ci galaas bi. may ma ci jus bi. may ma ci jus fa de. amu fa fëggal laal bi. fëggal ñëw di gas bàmmeel. da ngay ñëw di gas bàmmeel. kenn nekkatu fa. kenn nekkatu fa. tableau bi. tableau bi xoomaag na. gas. ngay gas. ba peel bi dóor ba peel bi nga ne bërëb la de nga ne bërëb la de bërëbu kan la bërëbu kan la paa diw paa kan la bërëbu yaay diw yaay diw ni ngay xàmmee góor ak jigéen ni ngay xàmmee góor ak jigéen mooy kii mooy kii diggante poojam diggante poojam ak óomam ak óomam moo xëcc moo xëcc kële kële diggante óomam diggante óomam ak déjoram ak déjoram moo xëcc moo xëcc lu ko mooy lu ko mooy doo xàmmee doo xàmmee yaxu góor yaxu góor ak yaxu jigéen ak yaxu jigéen nga kan nga kese kese barsax eh, du fooyee kaay. eh sang bi ne ne barsax du fooyee kaay. dem na aljana dem na aljana. kenn duggagul aljana ay naxante ay naxante kese la. ne Seydina Mohamed. mooy njëkk a dugg aljana. mooy njëkk a ci kaw alburax ci kaw alburax. Bilal Omar Bilal Omar ko. ñi dee yëpp ñi dee yëpp ñu ngi barsax ñu ngi barsax. moo tànn dee. mais moo tànn dee. du dëgg du dëgg kenn du tànn kenn du tànn dee. du man du yéen. du moom du ñu. bu téere bi amoon. bu téere bi amoon ñun ñëpp. ñun ñëpp danañ miiraas suñu bopp danañ miiraas suñu bopp jënd téere jënd téere kenn bëggul dee kenn bëggul dee. tey bu mu mënoon yàlla nañu dee. nee tey bu mu ne yàlla nañu dee. kenn la amee. kenn wax na amiin de. kan moo ko bëgg. kan moo ko bëgg kenn. waaye bu mu ne gudd fan. nee bu mu ne gudd fan. kenn dootul ji. amiin rek la ñuy dégg. rek kon mbir yi du caaxaan. kon mbir yi du caaxaan. nañ dellu ci yàlla. sànq bi ne nañ dellu ci yàlla. yàlla yàlla sàmm. yàlla yàlla sàmm. yàlla yàlla aar yàlla jirim yi ne jirim yi nañ dellu ci yàlla nañ dellu ci yàlla yàlla mi leen jirimloo yàlla bi leen jirimloo dana leen yor dana leen yor ñu seen jëkkër dundatul ñu seen jëkkër dundatul bu ñu jaay seen ngor jaay seen ngor nañu sax ci siraatul mustaqim sax ci siraatul mustaqim yàlla mi leen ko teg yàlla mi leen ko teg yor yàlla yi xale yi góorgóorlu leen ci wayjur yi na ngeen góorgóorlu ci wayjur yi ku fooyee wayjuram addina fooyee ko ko addina fooyee ku addina fooyee da nga da nga yées da nga du moroom bàyyi du ngay joxe baayu jàmbur ngay jox baayu jàmbur. jiital sa baay jiital sa baay. dañ maa sas. dañ maa sas. saalu sëñ bi. saalu sëñ bi. dañ maa oto sëñ oto sëñ bi defal ngay am sëriñ. balaa da nga am baay. bala nga am sëriñ bala ngay am sëriñ da nga am baay baay mu jur la mu jur la ci farata yàlla farata yàlla sunnay Seydina Mohamed sunnay Seydina Mohamed bul regg ne bul regg te mu xiif te mu xiif bul mandi bul mandi te mu mar sagal ko sagal ko xottil ko xottil ko dimbale ko dimbale ko yëkkati ko yëkkati ko loo defaat loo defaat nga am ci yàlla nga am ci yàlla waaye nga sànni sa baay nga sànni koy ka nga koy defali na baayam defal na baayam na ngeen fonk yooyu sang bi nee na na ngeen nañu fonk yaay yooyu du ñu fooyee kaay yaay ñu fooyee kaay juróom ñeen weer ñeenti weer ci biiru kenn biiru kenn nawet nawet noor noor cooroon cooroon lolli lolli bu feebaree bu feebaree bu wéree bu wéree yaag moom yaag moom kere ba muy dikk kere ba muy li mu tuur ci deret tuur ci sa baay sa baay mënu ko fay mënu ko fay la yow waxatu ko yow yàlla defal la meew. sang bi nag yàlla defal la meew. même bu nekkee ci marché bi. même mu nekkee ci sa heure lekk bu jotee. lekk bu jotee wala nga xiif. wala wala ngay jooy. wala ngay jooy. weenam. weenam tàmbalee tuur. tàmbalee tuur mën naa dellu kër. mën naa dellu kër ga. sama waa ji. sama waa ji yeewu na. yeewu na wala mi ngi xiif. wala mu ngi xiif wala mi ngi jooy. wala mu ngi jooy. télescope boobu. télescope boobu kan moo ko def. ne moo ko def. yàlla yàlla. mu nekk marché. mu nekk marché. ngay jooy ci kër gi. ngay ci kër gi. weenam tuuru. weenam tuuru mu xam ne. mu xam ne yeewu nga. yeewu nga baa xiif nga. baa xiif nga baa yaa ngi jooy. baa yaa ngi jooy. diggante ndeeg. diggante ndeeg doom. diggante ndeeg doom. secret bi fa nekk. ne secret bi fa nekk. boo ko fooyee rek. boo ko fooyee rek sa mujj ñaaw. sa mujj ñaaw. kon na ñu gën a góorgóorlu sang bi ne kon gën a góorgóorlu yal na yàlla dimbale yal yàlla dimbale yàlla bu yàlla tas yaakaar yàlla bu yàlla tas yaakaar yi keroog bésu badar ne keroog bésu badar am nañu dikkul am na ñu dikkul te yàlla te yàlla nee na Mouhamed nee na Mouhamed jox leen jox leen naka ñi ñëwoon naka ñi ñëwoon Seydina Ousmane ne Seydina Ousmane Aboubacar teew na Aboubacar teew na badar badar Seydina Omar Seydina Omar teew na teew na Seydina Aliou Seydina Aliou teew na teew na Seydina Ousmane Seydina Ousmane teewul teewul yonent daf ko ne. yonent daf ko ne. sa soxna. sa soxna dafa feebar. dafa feebar. toogal. toogal nga toppatoo nga toppatoo ko. kon jabar du fooyee kaay. kon jabar du fooyee kaay. moo bàyyi kër ndeyam. moo bàyyi kër ndeyam. kër baayam. kër baayam ñoo toxul si la. ñoo toxul si la. ëmbal la ëmbal la. wasin. ñu jël santam. ñu jël santam jox la ko. jox la ko boo yónnee doom. boo yónnee doom. yaay yónni ko yaay ko. mu def sa bos. mu def sa bos bàyyi bosi yaay. ki la may loolu. du ngor. du ngor nga toroxal ko. nga toroxal wala nga tuutil. wala nga tuutil ko wala nga doydel. ko. Seydina Ousmane ne Seydina Ousmane ñëwul Badar ñëwul Badar soxna moo feebaroon moo feebaroon yaay Ruqiya yaay Ruqiya doomu Seydina Muhammad waaye lu ñu jox sahaaba yi ñu jox sahaaba yi jox nañ ko jox nañ ko njàngale njàngale Seydina Muhammad Seydina Muhammad ne soxna ne soxna dañ koy sagal dañ koy sagal dañ koy ormal dañ koy ormal fa mu toll ne fa mu toll di bajantu di bajantu bu magee rek bu magee rek dana ko dana ko bàyyi Cheikh Abdul Qadir Jeylaani. de Cheikh Abdul Qadir Jeylaani. moom. moom ak sëtam bi. Abul Abbas. Abul Abbas. Amadou Tidiane. Amadou Tidiane. Cheikh Tidiane Chérif. Cheikh Tidiane Chérif. li leen jigéen teg. li ko teg benn wëliw. musu ko teg benn wëliw. Cheikh Jeylaani. ne Cheikh Jeylaani. benn soxnaam. benn soxnaam. yéegal na ko ci wajan. yéegal na ko ci wajal moom mu yéeg ci kaw. moom mu yéeg ci kaw ñaar mu yéeg ci kaw naaru góor. ñu ànd ak mool bi. ñu ànd mool bi. mu bu delloo. mu delloo. seen kër. seen kër ngir coono bi. ngir coono bi. téereem sax ne téereem sax dugal na ko ci cin dugal na ko ci cin sotti ci ndox sotti ci ndox coono fii la yem ne coono fii la yem ñuy dem ñuy dem ba naaj bi tàng ba naaj bi tàng mu wàcc mu wàcc ci ron garab ci ron garab di noppalu di noppalu ba ci kanam ba ci kanam mu ne ko nañu dellu mu ne ko nañu dellu soxna si ne ko soxna si ne ko du dangaa ne woon du dangaa ne woon dañuy seet sama wayjur dañuy seet sama wayjur lu ñuy delloo lu delloo mu ne damaa gis ba ñu wàccee. mais dafa gis ba ñu wàccee. sama fas bi sama fas bi. di naari góor bi di naari góor ak sa fas bi sa fas bi. di wajan bi di wajan bi. ñoom tallu ñu bajantu ñoom tallu ñu lu ñuy def seen biir lu seen biir la ñu tal waaye mool bi waaye mool bi. nga xam ne namp na. na nga ma xam ne namp na. ba biiram fees ba ci ngone la toll ci ngone la mi ngi tëb rek. mi ngi tëb rek. fa nga toll tey. fa nga toll tey. fa nga toll tey. bés bu tollee bés bu tollee fi yaayam toll fi yaayam toll dootul bajan dootul bajan yow tamit yow tamit fi nga toll fi nga toll ci ay at ci ay at boo ko paasee boo ko paasee dootoo bajan dootoo bajan naa la muñal naa la muñal dana jeex dana jeex ci lañ delloo kër ci lañ delloo kër soxna soosu soxna soosu ci la seddee ci la seddee moo ko pooj moo ko pooj weddeetu ko weddeetu ko ba jur na ay wëyu ba jur na ay wëyu kon jigéen ñi. sang bi ne ne kon jigéen ñi. bu ko yàlla dénkee. la ko yàlla dénkee. muy tabaka dal muy tabaka dal. muñal. muñal fasal kóllëre. fasal kóllëre. fa nga toll. fa nga toll bu fa tolloon. bu fa tolloon. du bawoo këram. du bawoo këram. ñëw sa kër ñëw sa kër. dimbale ko. ne dimbale ko. sagal ko sagal ko. bul ko gàcceel bul ko gàcceel. bul ko toroxal bul ko toroxal. yal na yàlla def loolu. mais yal yàlla def loolu. yal na yàlla sàmm. yal keroog bésu badar ne keroog bésu badar abu umaama abu umaama ñëwul ñëwul yaayam yaayam moo feebaroon moo feebaroon yonent ne ko yonent ne ko demal sa kër demal sa kër sa yaay lu yàlla bindal waa badar lu yàlla bindal waa badar dana la ko bindal dana la ko bindal waajur sang bi ne ne waajur du fooyekaay yal na yàlla dimbale sang bi ne ne yàlla na yàlla dimbale mbokk yi ne mbokk yi tey jii ne tey jii huit cent huit cent vingt et un millions. vingt et un millions. ci nit ci ñoo xiif tey ñoo xiif tey ci àddina bi ci àddina ñett fukki million nee juróom-ñett fukki. millions juróom-ñett fukki. juróom-ñett téeméeri. juróom ak ñaar fukki million ak ñaar fukki ak benn ak cent cinquante et cent cinquante et un. millions millions. tey ñoo xiif ñoo xiif. ku ci ñam. ku ci ñam. fa la yem fa la yem. kenn reggatul kenn reggatul mos rek. te fukk boo jël ci boo jël ci ñoom. juróomi juróom yi Afrique la ne Afrique la. ñett yoo ci jël ñett yoo ci jël. ci monde islamique la ci monde islamique li ci des. li ci des adduna bi séddoo. adduna bi lan la ñu def. ne lan la ñuy def. kilifa yu dul yërëm. kilifa yu dul yërëm. di paacoo alalu réew. di paacoo alalu réew. di luubal di luubal di rawale alal di rawale alal banque boo dem ci àddina bi boo dem ci àddina bi suñuy ministre su ñuy suñuy député suñuy député suñuy président suñuy président rawale nañu rawale nañu alal boo xam ne alal boo xam ne budget réew la budget fan la ñuy amee jàmm fan la ñuy amee jàmm di def ay ndogu di def ay ndogu di woo kilifa yi woo kilifa am na ñu nekk ci àll bi am na ñu nekk ci àll bi wallaahi wallaahi mbaxal la ñuy ndog mbaxal la ñuy ndog ñeleen kese. ñeleen kese la ñuy xëdd. la ñuy xëdd xanaa ñoom duñu doomu réew. xanaa ñoom duñu doomi réew mi. moo xiifloo. nee lan moo xiifloo. Afrique Afrique. lan moo xiifloo. lan moo xiifloo. monde islamique monde islamique. te alal bi yëpp. te alal bi yëpp ñun ñoo ko yor. ñoo ko yore. buñ ko defaroon. buñ ko defaroon ni ñuy duggee gaal. ni ñuy duggee gaal. di dem Europe. di dem Europe noonu la ñuy duggee. noonu la ñuy duggee di ñëw Afrique di ñëw Afrique. colonial. colonialiste yi. les yi. dem nañu. dem nañu. waaye ngemb nañu. waaye ngemb ay ñu ñuul. ay ñoo xam ne. ñoo xam ne seen sees. moo leen dàqal. moo dàqal seen population. na ñëpp dee. na ñëpp dee. ñoom. ñoom ñu dund. ñu dund ak seen ños. ak seen ños ak ñosi seen ños. ak ñosi seen ños. yal na yàlla dimbale. sànq bi yàlla na yàlla dimbale. politiciens yi. ne politiciens yi. bàyyi leen seen bopp xel. mais bàyyi leen seen bopp. xel xel balaa ngay falu. balaa ngay falu. kenn du la woo ci gàmm kenn du la woo ci gàmm. kenn du la woo ci màggal. kenn du la woo ci màggal. kenn du la woo ci ziar. kenn du la woo ci ziar. kenn la woo ci can. kenn du la woo ci can. amoo loo joxe. amoo loo joxe. bés boo folleeku. bés boo folleeku. kenn du la woo. kenn du la woo. du màggal du màggal. du gàmm du gàmm. du siyaare du siyaare du can du can. ba ci nekkee mais ba nga ci nekkee lañ la doon woo lañ la doon woo ngir li ngay joxe ngir li ngay ko jëlee foo ko jëlee ba nga faloogul ba nga ko joxe mënoo ko joxe ba nga ko joxe ba nga ca nekkee ci nekkee nga ko am nga ko foo ko jëlee foo ko jëlee alalu réew alalu réew lu sa salaire lu sa salaire defaral tëli defaral tëli defaral école defaral école fayal liggéeykat yi fayal liggéeykat yi nga ko def yaa nga def yaa baax boo follee ko boo follee ko boo dikkatee ci tànt boo dikkatee ci tànt bi ci ginnaaw lañ lay teg amuñu ko amuñu ko boo nekkee ministre boo nekkee ministre ci kanam ngay toog ci kanam ngay la wàccee bés bu ñu la wàccee ci ñaareelu siis ci ñaareelu siis bi ngay toog ci ginnaaw ngay toog ci ginnaaw ngay toog du la ñemee teg du la ñemee teg ci wetam balaa président di ko balaa président di ko jox enveloppe dellu leen ci yàlla. sang bi nee ne nañu delloo ci yàlla. bu ñu leen falee. ñu leen falee. ki leen leen fal mooy population bi. population bu ñu xiif. bu ñu xiif bu ñu bu ñu maar kenn mënut a motale. kenn mënut a motale. mel ni xorom mel ni xorom. ñëpp yëg sa cafka ñëpp kenn mënu ko kenn mënu ko dul yàlla. ku dul yàlla waaye defal. waaye defal ba jeex tàkk. xam ne nit nga. ñu xam ne nit nga alkamaalu. alkamaalu lillah lillah. dama yàlla dimbale. sang bi nee na yàlla yàlla dimbale. yàlla bu yàlla tas yaakaar yàlla bu yàlla tas di jaay Seydina Mohamed di jaay Seydina Mohamed. sallallahu maa ngi ñaan dara. sang sang bi nee mu ngi ñaan dara. loterie. loterie dafa xaraam. dafa xaraam. bu yeboo neel loterie national bu yeboo bu la neexee nga ne loterie nationale. dañu ne Sénégal laïque la. dañu ne Sénégal laïque la. lu la neex def. lu la neex def. du benn laïque. du benn laïque. ministre bu nekk. ministre bu nekk am nga sëriñ. am nga sëriñ. da ngay dugg. da ngay dugg ci ruq ba. ci ruq ba tuurloo saafara. tuurloo saafara. bu nekkoon laïque. bu nekkoon laïque. ne gëmoo sëriñ. ne gëmoo sëriñ. doo dem. doo dem ci fetaawkat bi ci fetaawkat bi. doo dem doo dem ci jabaraankat doo dem doo dem ci tariyaankat ci tariyaankat kenn ku nekk kenn ku nekk am na foo sa sumi waay mooy sa sumi waay kon kon waay lu lislaam bëggul lu lislaam bëggul yàlla bëggu ko yàlla dañ ciy jaar dañ ci dañ ciy jaar dañ ci alal boobu jaar alal boobu alal boobu jël ko jël ko di ko yóbbu ci daara yi di ko yóbbu ci daara yi par weeru koor par weeru koor baaxul baaxul taalibe buñ ko lekkee buñ ko lekkee barke alquran barke alquran daf leen di bàyyi daf leen di bàyyi ay basan ay basan ay ay sijaada ay satal ay satal ay ceeb ay ceeb ay diw ay diw jëlee ko ci xaalis loterie jëlee ko ci xaalis loterie di ko yóbbu ci jàkka yi yóbbu ci jàkka yi ci jumaa yi ci jumaa yi daara yi musiba la musiba te xale buy jàng alquran te xale buy mimara muy jooy muy jooy rongoñ boobu tuuru tuuru baayam baayam ndeyam ndeyam mbokkam mbokkam am nañ njëggal am nañ njëggal weñ bi ci tong weñ bi ci tong naan ci naan ci bu daanoo bu daanoo sa biir lekk sa biir lekk nga sempi ko nga sempi ko lekk ko sa lekk ko am nga njëggal am nga njëggal am na ko dugg aljana am na ku dugg aljana xaj la nandal xaj la nandal yàlla yërëm ko yàlla yërëm ko am na ko dugg safara am na ko dugg safara muus la yeew muus yeew bañ koo bàyyi koo bàyyi mu lekki mu lekki ba muus ba dee mu dugg safara mu dugg safara kon weñ kay. ne kon weñ kay. bu naan. bu naan ci rongoñu. ci rongoñu kuy jàng al kuy jàng alquran. nga laal ca. nga mucc. mucc yàlla lu mu mun. yàlla lu mu mun la. bàyyi daara yi sàng bi nee nañ bàyyi daara yi alal ju araam yi yi buñ ko ci yóbbu buñ ko ci yóbbu luubal luubal yóbbu ci daara yi ci daara yi set na foog na set déedéet déedéet dafa mel ni dafa mel ni nga jël cabinet nga jël cabinet raxasee ko raxasee ko saw saw dafa yokk kay dafa yokk kay. waay sellu waay sellu de. fuñ koy yóbbu fuñ koy yóbbu nañ ko yóbbu. nañ ko yóbbu. di def ay conférence di def ay conférence di invité di invité ay oustaz ay oustaz. pa taabal boobu. pa taabal boobu. wallaahi. wallaahi yowmal qiyaamati yowmal qiyaamati buñ la wanee image bi buñ la wanee image yi. Seydina Mohamed Seydina Mohamed du siggi xool ko du siggi xool ko. dafa lay dummooyu dafa lay dummooyu di lewati ba di lewati ba. dana yàlla dimbale ñu. sànni bi dana yàlla yàlla dimbale ñu. yàlla bu yàlla tas yaakaar yi yàlla bu yàlla tas yaakaar yi. jaay Seydina Mohamed jaay Seydina Mohamed. weer bi nag. ne weer bi nag. julli démb. julli démb. julli tey. julli suba. yàlla la soob. yàlla la soob. bu ñu xasante. ne bu ñu xasante. bu ñu ŋaññante. bu ñu bu ñu njatamalante. bu ñu njatamalante. ron asamaan si. ne ron asamaan si. dara mënu fee xew. dara mënu fee xew. lu neexul yàlla lu neexul yàlla. bés bu ko bëggee dindi ko bëggee dindi. dana ko dindi dana ko dindi. te du ñaaw ci xar yi te du ñaaw ci xar weer bi weer bi. démb taxaw na démb taxaw na. juróom-ñetti minutes juróom-ñetti minutes. ñaar fukki seconde ak juróom ak juróom. juróomi cerse. juróomi cerse. démb feeñ na démb feeñ na. ci horizon bi ci bi. loolu la ñuy tuddee ufuk. loolu la ñuy tuddee ufuk. ufukul aala. ufukul aala. ufukul mubin. ufukul mubin. bët nag. ne bët nag bu xamul fu muy taxaw. bu xamul fu muy taxaw. gis ko du yomb gis ko yomb. oto bu jógee Kaolack. oto bu jógee Kaolack. di jaar Sagne Bambara di jaar Sagne Bambara. huit heures pile. huit heures nga ñëw huit heures cinq minutes. nga ñëw huit yegg na Gandiaye yegg nga ne weer bi feeñ na nga ne weer bi feeñ na. yaa dikk yaa dikk fekk wéy na. fekk wéy na dafay daw. dafay daw wa samsu. wa samsu tajri. tajri li mustaqirin laha. mustaqirin laha. zalika. zalika taqdiru. taqdiru azizul alim. azizul alim. wal qamaru. wal qamaru qaddarnaahu. qaddarnaahu manazila. manazila. manazila. manazila. manazila. jant bi day daw. jant bi day daw. Euh, weer bi dafay daw. weer bi dafay daw. gisuma ko. gisuma ko. taxaw na démb. taxaw na démb. jant bi dafa rot rek. jant bi dafa rot rek. moom mu taxaw ci ginnaaw. moom mu taxaw ci ginnaaw. juróom-ñett minute. juróom-ñett minute. ñaar fukki seconde. ñaar fukki seconde. ak juróom ak juróom. ak juróomi ceers. ak juróomi ceers. te juróom-benn fukki ceers. juróom-benn fukki ceers. mooy benn seconde. mooy benn seconde. juróom-benn fukki seconde. juróom-benn fukki seconde. mooy benn minute. mooy benn minute. juróom-benn fukki minute. juróom-benn fukki minute. mooy benn heure. mooy benn heure. هي هي في القرآن في القرآن يسألونك يسألونك عن الأهلة عن الأهلة قل قل هي هي هي فكك جرم هي هي فكك جرم addina bi addina bi dafa am buum yu ko wër. ne dafa am buum yu ko wër. trois cent. trois cent soixante lignes soixante lignes. degré zéro bi. degré zéro bi moom moo tudd. moo tudd Greenwich. Greenwich mi ngi jaar. mu ngi jaar wetu Angleterre. ne wetu Angleterre. bañ ko gisee. bañ ko gisee ak ren. ak ren téeméeri at la. téeméeri at la ak fanweeri at. fanweeri at ak juróomi at. ak juróomi at. mille. mille huit cent. huit cent quatre-vingt-quatre. quatre-vingt-quatre ci la feeñ. ci la feeñ. mille huit cent. mille huit cent quatre-vingt-quatre. quatre-vingt-quatre moo tax ñuy naan. ne moo tax ñuy naan. GMT. GMT. Greenwich. Greenwich Meridian. Meridian time. li ko faree penk yëpp. li ko faree penk yëpp. plus un la. plus un la. ba. mais plus. plus 180 180. li ko faree sow. Sénégal ci la bokk Sénégal ci la bokk. yëpp moyen 1 la. yëpp moyen 1 la. ba 180. ba 180 ñaari 180. ñaari 180 boo ko boole. boo ko boole muy 360. 360 buum yi wër adduna yi wër adduna bi. 360. mais 360. na ko diviser. ci 15. mu jox la 24. mu jox la 24 mooy fukk ak ñaar guddi. guddi fukk ak ñaar. ligne bu nekk. ne bu nekk. talaayam talaayam 4 minutes la 4 minutes la. 4 fois 15. 4 fois 15 60. 60 mooy 60 minutes. mooy 60 lii nag. ne lii nag. du jàng mbedd. ne du jàng mbedd. déedéet. déedéet. Sénégal. Sénégal ñi ci wax. ñi ci wax. nga mun a nangu. nga mun a nangu mooy ñii. mooy ñii. Thierno Ahmed Demba Sokone. nee Thierno Ahmed Demba Sokone. yal na yàlla yërëm. nee yal na ko yàlla yërëm. njabootam. njabootam yal nañu mucc teraw yal mucc teraw. Serigne Ali Touré Serigne Ali Touré. Cheikh Fass Touré Cheikh Fass Touré. yal na ko yàlla fay yal na ko yàlla fay. Cheikh Moussa Camara Cheikh Moussa Camara. ca ca Gangel Fouta yal na ko yàlla fay yal na ko yàlla fay. sëñ euh, Mbacke Bousso. sëñ Mbacke Bousso. mu xaadimu rasul ci la ci la am na ku nekkoon Medina Baye. nee am na ku nekkoon Medina Baye. Mahmoud Sankara Mahmoud Sankara. ku jege ñoon Baye la. yow xam nga ko waaw xaritu sama papa la xaritu papam la woon lool ba mu wàccee liggéey ba mu wàccee liggéey mu toxu ci sëñ Aliou mu dëgg toxu ci sëñ Aliou ba kooku wàccee liggéey kooku wàccee liggéey ci la toxoo ci la toxoo ci imam Hassan ci imam Hassan ba mu faatoo ba mu faatoo imam Hassan imam Hassan moo ko jullee moo ko jullee mu ngi tëdd mu ngi tëdd fii fii ci segu Medina ci segu Medina yi moo ma wax ci làmmiñam moo ko wax ci làmmiñam mi ngi ko jàngee ne mu ngi ko jàngee dëkk bu ñuy wax dëkk bu ñu wax Soufara Soufara ci Mali ci Mali boo jógee segu ne boo jógee balaa ngay yegg balaa ngay yegg mufti mufti lii du lu yomb. ne sang bi lii lu yomb. Afrique bi yëpp. ne Afrique bi yëpp. ci nit ku ñuul yi. ci ku kenn lañ ci am. kenn lañ ci am. mooy Cheikh Modibo Diarra. mooy Cheikh Modibo Diarra. astrophysicien astrophysicien. ci Mali ci Mali. ak kenn rek. ak kenn rek. ci doomi réew mi ci na fi yàgg yal na fi yàgg te ba mu toxal ko. ne mu toxal ko. jox ko xeet yi dikk jox ko xeet yi dikk. yàlla bañ koo jël. yàlla bañ koo jël. ba lii. ba lii. mu sottil ko mu sottil ko. njaboot njaboot bi am yàlla fay la amin allah ya rabbi allah waaye lii bu mu tee ne waaye lii bu mu tee na ngeen ormal seen sëriñ na ngeen ormal seen sëriñ ñi bëgg leen bëgg leen yëkkati leen yëkkati leen yii yii du lu yomb du lu yomb da ngay topp jant bi da ngay topp jant bi at bi yëpp at bi yëpp trois cent trois cent soixante-cinq jours soixante-cinq jours yi ak six heures ak six heures de temps yi de temps yi waaye koor be koor waaye koor be koor tam xarit ba tam xarit tam xarit ba tam xarit day fukk lu weer day fukk lu weer fooy xamee weer fooy xamee weer lii da ngay topp weer bi lii da ngay topp weer bi. at bi yëpp at bi yëpp. jant bi bi trois cent. trois cent soixante cinq jours soixante yi. ak juróom-benn waxtu ak juróom-benn waxtu yi. incha allah ne incha allah. pàcc bi ne pàcc bi. dana fi yaatu fi yaatu lool. ëllëg ëllëg. yéen a yore diine bi yéen a yore diine lii incha allah incha allah dana fi jeex dana fi jeex. ñu ngi nuyu. ne mu ngi nuyu. Euh, ñi fi teew. ñi fi teew. jóge ci bërëb yi fasanti bi. penku. penku sow. sow bët saalum. bët saalum bët gànnaar. bët gànnaar. yal na yàlla fay yal na leen yàlla fay. Euh, tànk yi ngeen dikkee tànk yi ngeen dikkee. ak yi ngeen di delloo ak yi ngeen di delloo. yal na yàlla baaxee yal na yàlla baaxee. journaliste yi ne journaliste yi. presse bi presse bi. ñi ci télé yi ñi ci télé yi. ñi ci journaux yi ñi ci journaux yi. Euh, ñiy wax ñiy wax. gàcce ngalaama gàcce ngalaama. seen mujj yàlla bu mu ñaaw seen mujj yàlla bu mu ñaaw bokk. yàlla may leen alal ci bosi kenn du ngeen wéeru ci bosi kenn. kenn du leen buddi ba kenn du leen buddi. dëgëral leen dëgëral leen ba kenn du am yàlla. yàlla na lu ngeen di am. li ngeen di am yàlla na ci yàlla. na ci yàlla ji lu ngeen di ñàkk. di ñàkk yàlla bu ci yàlla bokk. yàlla bu ci a a ree. yàlla bu ñu jóge ci yeneen réew. ñu ci yeneen réew yi. nekk ak ñun fii. nekk ak ñun fii ci bés bu tedd bi. ci bés bu tedd bi. ca Gambie. ci Gambie. ca Guinée Bissau. Guinée Bissau. ci Guinée Conakry. mbokki Mauritanie. mbokki Mauritanie. waa Niger. waa doomu Tchad yi. doomu Tchad yi. nga xam ne weeru koor bi yëpp. doomu waa xam ne weeru koor bi yëpp. ñu ngi bàggante. ñu ngi bàggante. yal na yàlla fay. mais yal na leen yàlla fay. li ngeen fi wut si. li ngeen fi wut si. di xam-xam. di xam-xam. yal na yàlla may إن بقى فناو إن بقى فناو في الله في الله في أسماء الله في أسماء الله في صفات الله في صفات الله في أفعاله في أفعاله فناء بوب فناء بوب فناء فناء فناء فناء الفناء فناء الفناء يلا يلا ما لين يلا يلا ما defal leen baqaa defal leen baqaa bu ngeen delloo bu ngeen delloo ngeen mën a yëggale yeneen yëggale yeneen ci yàlla ci yàlla mucc ak mucc mucc ak mucc le incha allah ne incha allah maa ngi jégalu ne mu ngi jégalu jotaay bi yàgg na jotaay bi yàgg na waaye tey nit a ngi wax tey nit a ngi wax ëllëg du wax ëllëg du wax tey yéen a ngi may gis tey yéen ngay gis ëllëg du ngeen ëllëg mooy loolu alhamdulilah alhamdulilah kon daje na ak yéen mais comme daje na ak ñun foog ma namante ko ak yéen mu namante ko ak ñun ngeen bànneexu ngeen bànneexu ci jëmm ji ci jëmm ji ma bànneexu mu bànneexu seen jëmm dell ak jàmm dell ak jàmm ñu déggante aljuma bii di ñëw ne bu delsee bu delsee ci la ñuy mottali ci ñuy mottali kaamil bi ñu doon firi bi ñu doon firi ci weeru bu kenn ne bu kenn tardé fajug aajo ne fajug aajo la zahir ak